ñun bi kon ci la ki nga xamante ne moom mooy Coka Baldé war a dugg mu ñëpp di sant yàlla bu baax waaw di bëggee ñëpp di sant waa Pikine di waajal suñu combat bi tey di ñaanal comme ni nga ko waxee rek sax moom suñu waare si lépp la daa ñun bokk nekk i écurie bi mu nekk bu baax tam di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek incha allah ndam bu gën ci moom. waaw monsieur adversaire la comme adversaire yi rek ay morom lañ ko waaw rawante wuñ dara si lamb waaw te Macha moom ku ko xam moom xam ne champion la ku ko xam tam xam ne adversaire bu coriace la quoi mais tamit dafa moom liggéey li tax xam nga waaw bu jàppee daal su xeexee mooy loolu waaw ko ñaanal ndam ci combat bi rek. waaw ñu ngi pare rek xam nga moom daa am si ñu nekkoon xam nga waaw am si luñ jógee sax la ñuy wax am luñ doon xaar nag waaw instant moom sant yàlla bu baax quoi. waaw léegi rek xam naa incha allah gars yi nañu gis léegi du yàgg dara incha allah taw feex waaw jaay ak place yu bëree bëree bëri ay glace lay jël ndeysaan mi ngi mi ngi joxe ay sarax glace glace lay jël parce que parce que ginnaaw bi nga xamante ne kon génn na deful directement ci oto bi dafa génn kon ay yokk ay mbiru glace di dox ci kër yi nga xamante ne kon ñoom ñoo ko séddoo donc mu des daal day dox ci seen glace bu fekk rek seen glace boo xam ne bii seddal la loo xamante ne kon jàmm dañuy doon waaye dañoo seetlu ne tey dafa bu ñu ko gisee ak ñu ko gisee dafa indi trois deux maanaam chaise bu baax boo demee toog na. waaw di sant yàlla di julli ci Mouhamed di gërëm suñu ñaari waajur rek di wax ni ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam rek mooy kattanal képp ku am doole moo la may doole yàlla yàlla ànd ak ñun yàlla may ñu ndam ci barke yonent bi waaw làmb la joo wax dëgg yàlla tey jii. événement la ci Sénégal ndax booy xool waaw da koo soxla Pikine da koo soxla Pikine da koo soxla maa ngi ñaanal Jacob di ñaanal Eumeu Sène yàlla may ko ndam aussi. papa tey ndax ci kon moom a euh, euh, Jacob digganteem ak Mathieu du bëre waale pression déedéet yàgg na miin na miin na làmb parce que mbër la buy bëree simple ci àll bi di bëre mbapat kon li ñu koy ñaan rek yàlla fal ko cat mais lépp lu koy xaar tey xam na ko ndax comme ni nga ko waxee. ñu gis mhm. waaw wane confiance en soi mhm. mais Jacob tey tekk laajul coow laajul dara dafa laaj dal tey rek incha allahu rabi di ñaan yàlla suñu borom rek yàlla may ñu ndam. waaw euh, loolu moom xam nga boo jëm ci guerre doo joxe say arme mais ñi ngi ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun maa ngi leen di daaw waay. danañ ñaan waay danañ ñaan. ah booy naan nga doo dem quoi. ndam du set wecc Kumar, kumar, kumar. Sudah nak aja. ñun yaa rek la ñu topp. waaw waaw waaw. maa ngi noonu. ama rek la topp bu bëggaatee rek da koy joxaat mu defaat beneen xalaat perte la. nga baale lay nuyu. waaw ñu lay fay. ayca ci seen gox gis leen ni ngeen di waajee ki nga xamante ne moom mooy Jacob Baldé war a laale si digganteem ak Mathia fan la wàccaay tool doomu Pikine la moo tax ñun muusu Pikine yi sax dañ leen di mar billaahi day daw rek dañ koy dem jëli ñëwaat na ji ñëwaat waaw yomb na si li nga wax waaw ci li ñu gis quoi yomb na ayca Jacob Baldé ginnaaw semaine passée gis nga combat bi nga xamante ne amoon na ci diggante Ama ak fi mu mujjee ndax tey du bë bëriwaale pression boobu. pression boobu nag Jacob doomu Pikine la loolu dara si moom ndax suñu borom moo jagleel loolu doomu adama li nga war a am ngay am li nga war a am doo ko am waaw mais ñàkk ju jom yaa fu suñu am nañ ñaanu waajur kon dañuy teg lépp si loxo yàlla waaw noonu la demee nag. ñëpp gis combat bi nga xamante amoon na ci digganteem ak ki nga xamante ne moom digal euh, ni mu ni mu ni mu jeexee ñu bëri na Jacob Baldé ay combat bu ñëwee day bëgg a imposer boppam euh, dëggal boppam du taxaw du xaar du lire le combat dafa am dafa euh, manque de lecture de jeu day ñëw rek bëgg a wan ne que mbër mi maa la mën ëpp la doole te ñu bëri nañ su ko defee ci digganteem ak Mathieu ay mboqam dinañ jooy. ah loolu loolu Jacob la. mais ndax conseiller conseiller ngeen ko si wàllu boobu itam. ah loolu bàyyi bañ toll si rek waaw. da ngeen di xeex wala da ngeen di bëri. ah baa buñ toll si. ah mais ñamalal gars yi tuuti. baa buñ toll si. waaw lu mu bëgg dañ ko ciy fekk lépp lépp lépp lépp lu mu bëgg dañ ko ciy fekk. parce que maam seera fa gis ngeen wàccaay gis ngeen ci wàccaay parce que wàccaay ak face to face yi nga xamante ne am na ci digganteem ak Mathia Mathia xale la daa nekk ci yoon te nee na moom nekkul sa mooy ku koy baare. ah loolu wax mu yàqu la bu nga jàppee mu xam ne bu nga jàppee mu xam ne moom ci dara billaay wallaay taal bu nga jàppee mu xam ne alalul làmb faral yoonam newu ci barki Serigne Touba Mbacke eh jëla sa temps rek yow jàng jëla sa temps rek day daw rek sabab sël billaay wallaay taalaay. xalaat pertaal la ñu toog. ayca ñu gis Ama Baldé ak mu bëre ba pare yàlla xaj ko mais liñ naan daanu mel ne yaa daan ay soppeem gën koo bëgg ban ban relation moom ci diggante Ama Baldé ak nga xamante ne ñooy ay soppeem. mais Ama moo fa am. Ama moo fa am quoi Ama moo fa am. ñun ñu ngi toog si rois yi. waa Mbër Serigne Gueye waa Mbacke. eh Mbër rek Mbër rek la ñuy toog Ama Seul. ah yaa ko fa am daa wallaay taalaay. nee na nee na Ama su soxla woon der boobu sax ma jox ko. ba Serigne Touba Mbacke kañ la est-ce que duñ dem si moom pour nga pour nga xam loolu. delloo lii Ama rek la ñuy toog. waaw. Mbër. xamoo fu Mbër a xamoo. yàlla boo bëggee defaan ko si. waaw tey suba rek sama soxla ñu nekk si yow. defaan ko si laa la ma ne boo bëggee defaan ko si laa la wax jënd leen lañ set. yaa ko ba am. ñun lañ si rek la ñuy toog xalaat pertaar doo nga xam gaar ñu baax rek mbër jooy na. waaw. dëgg waay. yëpp ndel bi léegi